الصيام له ركنان أولا النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية تعني تأكد الشخص بأن سيصوم قبل دخول الفجر إذا كان تصميم بعد بعد الفجر فلا صيام له لقوله صلى الله عليه وسلم من لم من لم يجمه الصيام قبل الفجر فلا صيام له ثانيا الإمساك عن جميع المفترات من الفجر إلى غروب الشمس bi qawlihi subhanahu wa taala wa kullu wasrabu ata yatabayyana lakum alxaytu alabyadu min alxayti alaswadi min alfajr summa atimu siyaama ila alleyl wa yajuru bina ayuha alixwa an an naclam an asiyaama la yaani mujarada adami alakli wa sul fa huwa yaani ijtinaaba almaxduuraati wa adama alwuquu fi almuharramaat fa rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa siyaamu min alakli wa surbi innama siyaamu min an min allaxwi wa rafas fa in saabaka ahadun aw jahila alayka faqul inni imru'un saimun wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam aydan man lam yada xawra suuri wal amali bi fa laysa lillahi xaajatan fi an yadaa taamahu wa saraaba wa yaqulu aydan fi hadisin axar yaq laysa man ruba saaimin laysa lahu min siyaamihi illa aljua wa ruba xaaimin laysa lahu min qiyaamihi illa alsahar ayyuha al ixwa yajibu an yakuna siyaamu wasilatan li taqwa allahi wa muraqabatihi wa sayxuna xaadimu rasul yaqulu fi hada sadat summa siyaamun tabihu lam yanxasir fi adami l akli faqat fi ma tubir isruba saaimin maa aljamaa laysa lahu fihi siwa almajaa fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi fal tumsiku an fikratin il an an fikratin ila alxaram fal tumsiku an fikratin ila alxaram walmasihi wasamhi lahu maa alkalaam wa kulli fikratin radiyatin kama taraktumu aklan wa surban uliban rabbana taqabbal minna a'malana wa aqil anna al-asarat wa kaffir anna sayyi'atina innaka mujibu da'awat mbokk yi ginnaaw bañ sant yàlla junni ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel ñëpp ci weeru tedd yi nga xam ne moom la nekk rawatina fan yi nga xam ne moom la nekk muy fan yu mujj yi muy fan yoo xam ne yu kawe ci suñ la ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su masaa ñëw day yeewaa këram laxasaayu ngir fas yéenee dundal gudd fan yi nga xam ne mooy fan yu mujj yi muy fukk fan yu mujj yi ñu ñaan suñ boroom nag mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy boroomu man ba lii nga xam ne moo sonal àdduna sépp te kenn mënu ci dara kudut moom mu mu dimbali nu ci kattanam ak manam ak xam gi nga xam ne moom la xam lu nëbboog lu feeñ ba teggil na ko teggi ko ci mbooleem àdduna sépp ba ñëpp delluwaat ci li nga xam ne moom lañ baaxoo woon a nekk loolu suñ borom mën na ko jàpp ni na ko waaye nag loolu day ànd ak fag fogoro ndax yàlla suñ borom moo nu wax ne yaa ayyuha alladina amanu xusoo xisrakum mu nag moom suñ borom moo nu wax ne nañuy fagg nañuy nañuy faggandiku tey wattandiku wattandiku bi nag dégg nañ ko dégga déggati déggati ko ba tax na war nañ ko bàyyi xel muy set gi ak masque yi nga xam ne moom la ñuy itam mooy li nga xam ne mooy daje loolu dégg nañ ko déggaat ko kon mooy yooyu nga xam ne moom la suñ borom wax nag moom lañu moom lañ sentaane muy ay muy muy ay yoo xam ne ay matukaay la yoo xam ne dañ koy dañ ci dañ ci koy jàpp ngir wattandiku nañ nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñaareel ba itam suñu borom dañoo wax ne wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baadin yamuruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkar wa yuqimuuna salaata wa yutuuna zakaata wa yutiihuuna allaah wa rasulahu ulaayika sa yarhamuhumullah yàlla dañoo xamal ne jullit day li mu war a nekk mooy dafa dafa da war a doon koo xam ne day nangu kilifa day nangu kilifteef waaye nangu kilifteef goo gee nag tekkiwut ak yaay caaral ci moom nag kilifa géeg li muy war a tekki mooy kenn ku nekk da nga xam ne am nga kilifa waaye nag da nga yëg te it yëg itam ne responsable bi kenn ku ne ndax ya'muruuna bil ma'ruuf la wax mooy boo doonee ab jullit nangu kilifte ba noppi itam da ngay doon koo xam ne da nga xam ne ab responsable laa bu ko defee nag comme responsable lañu day mel ni ñooy ñu war a taxaw kenn ku ne da ngay yëg ne yow yaay ki nga xam ne yaay xeex xeex bi kenn ku da ngay yëg yow yaay ki war a defar àdduna kenn ku ne da ngay war a yëg ne yaay ki nga xam ne yaa war a joxe mbetukaay yi yaa ko war a taaba itam loolu nag day war a tax ba ñu xam ne situation bii ñu nekk kenn ku nekkati booy ñëw na nga bàyyi xel andiwaale sa si jaadab bopp kenn ku ne itam yëg ne bu jumaa ji feesee bañ wax ne bañ wax ne la wees na nga bañ a xëccoo ngir xam ne boo toogee sa kër itam comme am doon nga ak yéenay julli suñ borom dana la fay li nga xam ne moom la la dig kon ñu bañ a xëccoo bañ a bañ a musante bañ a def dara saa yuñ la waxee ne jumaa ji fees na rek nangul loola te te ànd ja loolu mooy tax li nga xam ne mooy mooy li ñu yor yàlla bëgg ci jullit muy jullit bu nekk yi nekk ab responsable loola mooy tax mu sax ci ñun kon nañ bàyyi xel yooyu mën nañ bàyyi xel set gi nañ bàyyi xel masque yi nañ bàyyi xel itam bu feesee buñ la waxee na fees na ñëpp ñu ñu toog nañ bàyyi xel itam ne kenn ku ne booy ñëw soo ne indiwaale sa sijaar ak bopp loolu itam bokk na ci li nga xam ne mooy matukaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël. bu ko defee nag li ci teguwaat li ñu war a waxtaane moo di koor dafa doon loo xam ne lu borom sellal la dafa doon loo xam ne itam lu màgg ci moom la màgg gi nag da ko dañoo jox ay tegtal yu bari li ñuy war ne lii lu rëy la ci moom li ci njëkk mooy moom jenn jëf ji nga xam ne. moom la suñ borom wax ne bu ëllëg yi bañ koy fay du yebal kenn wala muy jox kenn waaye moom ci boppam moo koy fayal boppam loolu nag kon ñu xam ne lu rëy la lam wane ne moo koy fayal boppam loolu lu rëy la ñaareel bi itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ne koor ba koor diir siwaat boo wooree koor gi ba kero woor koor gi di si siwaat lépp loo xam ne def nga ko ci ay bakkaar yu mag suñ borom dana la ko jéggal bu fekkee ne yaa ngi doon góorgóorlu di moy ci bakkaar yu ndaw yi ñaareel ba itam wax mu xamal nañu ne bu koor day ku koy def suñ boroom bu ëllëgee koor dana taxaw di la tiju tinu suñ borom ngir xamal ko ne ko kii góor lu woon na ba woor ma lekkutoon naanutoon kon nag tin ma ji te nee na bu bu tinoo suñ borom suñ borom dana ko tin ñaareel ba itam muy jaamu yàlla yi nga ciy def rawatina naafili yi ak julli yi ñu xam ne naafili yi itam tekkiwut ne dafa war a doon loo xam ne rek buñ koy def buñ koy def dañ ko war a def ci mbooloo déedéet li ci gën sax mooy nga def ko boo koy def yow képp yow ak sa njaboot moo ci gën kon bu ko defee nag naafila googu itam ak alxuraan ji ci jàng boo léegi da lay tinu ji suñu borom tinu ko ak day wax ne suñu borom kii day maa ko woon a nelaw ngir di ma jàng ak di ma tari kon nag tin ma ci yow suñu borom te nee na boobaa suñ borom dana ko ci tin ñaareel ba itam beneen yi nga xam ne mën a yoon itam ne koor lu am solo la moo di ne suñ borom dafa mel ni dafa jagleel ñi nga xam ne ñoom ñooy woor ab ab ab xeetu teraanga joo xam ne ñoom rek la koy defal ndax am na léegi am na ci am na bunt boo xam ne rayyaan dañ koy tudde te boobu suñ ba yonent bi laal alayhi wasallam xamale na ne kenn du fa dugg ku dut ñi nga xam ne ñooy woorkat yi kon nag koor mu doon a ngi noonu ak yeneen njëriñ yu bëree bëri loolu nag te mooy jënd jëf ji nga xam ne suñ borom ngir bëgg nu ko nangul ngir mën noo fay lu kawe suñ jot mooy jënd jëf ji nga xam ne moom la wutal ne boo ko taxawee boo ko dee taxawee boo ko dee taxawee bu bu sa mata matadik doomu aadama xam nañ ne lum mu dugg ne dana ci feeñ waaye suñ borom moo nu wutal loo xam ne moo ñuy faral matadi googee ak day di googee muy muurum koor loolu lépp di ñu woon tolluwaayu koor ak ak li nga xam ne fi la fi la nekk waaye nag koor moomu fi fi mu toll ak ni mu mel dafa am ay conditions yoo xam ne mënut a ñàkk nga def ko ngir koor gi mën a wér bi ci njëkk moo di ne faaw da wóor ne suba danaa wóor waaye bu fekkee ne da ngaa dégg ne gaa ñi nee nañ war nañ démb rek wala dogg nañ ne danañ wor nga daal di ànd ci koor googee te fekk na bi nga koy ba ci ànd fekk na fajar fee weesu boo wooree itam koor ga du baax ndax dañuy bëgg nga fanaanoo yéene ji kon bu faaw da ngay fanaanoo yéene ji ñaareel bi nga xam ne bokk na ci ñi buntu ñàkk ci koor itam moo dina da ngay tëye sa bopp ci lépp loo xam danaa wax ne boo ko defee day day day toj day yàq sa koor doo lekk doo naan doo def yeneen bànneex yi jaxasoo yi itam doo ko def yeneen bi ci tegoon mooy ñu xam ne koor doonu dog rek rek ñàkk lekk ak ñàkk naan ndax suñ borom dañuy gën a xamal ne koor li tax mu waral ko waral ko ci ñun moo di ne ngir ñu am yóbbul bi nga xam ne moom la wax ne mooy yóbbul bi ñuy mën a dimbali ëllëg ndax suñ borom bañ ko laaj buñ ko daan mel ni dañ ko laaj ne ko xam nañ ni fii ñu nekk de ab tukki rek la dañuy am nag fu ñu jëm foofee ñu jëm nag ban ban ban ban yóbbal moo nuy dimbale ngir ñu mën a àgg foofee ci àgginu rafet mën a dajeeg li nga xam ne moom nga ñuy dig mu wax ni ne wa tasawadoo fa inna xayra zaadi taqwa kon mu mel ni ragal yàlla moo tax suñ borom def ci koor def faraltal ci ñun koor ngir bëgg bu ci jógee ni nga xam ne moom lañ doon ñàkk lekk ngir yàlla suñ borom def di ko jàkk lekk ngir ñaan ngir yàq di ko yàq di ko ñàkk naane ngir yàlla suñu borom képp di ñàkk jëfandikoo yi nga xam ne itam moom la daggandoo noonu ci ñoom te tere terenu ko te suñ borom rek tax bu ëllëgee itam ñu doon ñoo xam ne lépp lu ñuy defati benn jéego bu ñuy jéegati ak fu ñu jëmati ak lu ñuy waxati ak lu ñuy defati ñu sédd ci suñu borom ndax loolu mooy ragal yàlla lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek nga bàyyi ci xel suñu borom loola mooy ak ragal yàlla bu ko defee nag loolu tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu xamal ne koor day tekkiwul rek nga bañ a lekk bañ a naan ndax day mu li koor li muy tekki mooy nga bàyyi ay caaxaan ak ay lépp loo xam ne doonut loo xam ne lu lay jariñ la ci ëllëg boo demee sax ba am koo xam ne mu ngi lay jalgati ngir bëgg laa yóbbu ci loo xam ne bokkut ak lii nga xam ne mooy li nga war a doon ndax dafa mel ni koor kon li muy tekki mooy jikko jikko da suñ borom bëgg ci ñun te ragal yàlla itam jikko moo moo moo moo ko lal ndax jikko doonut loo xam ne danga koy def rek ci sa ci sa ci sa ci ci nim la ñëwee waaye kenn jikko joo def ju ne boo ko seetloo da nga xam ne la ko lal ba nga mën koo def mooy sam xel te xel moomu la moom la suñ borom jox doomu aadama ngir bëgg mu woon mu jox ko teraanga joo xam ne dana wone ne moom am na teraanga ju mu ko defal te teraanga joojee mu ko defal nag la koy mën a firndeel mooy waxtu wu nekk teraanga joojee mu ko defal mu ni ko bàyyi xel di ko jëfandikoo. te xel mooy li nga xam ne mooy tax nga mën a yor jikko ji rafet ñaareel ba itam mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu képp koo xam ne yaa ngi woor te mënoo bàyyi waxi caaxaan nee na yàlla amut soxla ci sa koor ñàkk lekk goge ak ñàkk naan goge yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax na itam am na ñoo xam ne ñi ngi woor de te seen koor gee amuñ ci lu dul ak ak ak xiif ak ñàkk ak mar waaye day am na ñoo xam ne itam ñi ngi naafila te seen naafila goge amuñ ci dara lu dul ñàkk nelaw kese waaye amuñ ci duñ ci ëllëg duñ ci am fay gun rafet loolu nag tax na kon na koor na war a dafa war a nekk loo xam ne dafa war a doon am moyen boo xam ne moo nuy dimbale ci jëm ci ragal suñ borom moo nuy dimbale itam ci bàyyi xel suñ borom moo ñuy dimbale itam ci ñu xam ne suñ borom mi ngi séent mi ngi xool ci ñun lépp luñ def jéego buñ def wala wax ju ñu wax wala jëf ju ñu def suñ borom a ngi jàkkaarloo moom kon loolee nag war nañ buñ koy def sédd ci suñu borom loolu nag tax na suñ suñ Tuubaa wax ne xamal nañu koor day tekki tekki wut rek lekk ak ñàkk naan waaye ndax am na ñoo xam ne ñu ngi koor te ànd ak nit ñi waaye te leen seen koor gay amuñ ci lu dul xiif ndax koor bi nga xam ne mooy dëgg-dëggam nee na mooy sa cër yëpp woor sa cër yëpp woor nag mooy sa tànk bii. bul ci dox jëm ci lu araam sa bët bii bul ci xool bul bul ci xool doonut ak na nga gis gis bokkut ak xool gis moom amoo ca pexe waaye xool mooy loo jubloo gis loo loo jubloo def wax yitam wax itam maanaam dégg dégg itam doon dégg bokkut ak déglu déglu moom mooy loo xam ne yaa ko jublu sa bopp waaye dégg nag amoo ca pexe kon loolu li nga xam ne mooy déglu ak ak xool ak dox jëm ci loo xam ne loolu suñ borom aramal la lépp dafa doon loo xam ne wala ngay xalaat ci sam xel sax xalaat yu ñaaw loolu lépp bokk na ci li nga xam ne bokkut li nga xam ne moo nuy dimbale ci li nga xam ne mooy koor gi kon suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy kii mën a matal te xam na ne ay doomi aadama lañ te xam na ne mata di nañ yàlla mata di gaw gi xam ne moo nekk ci ñun yàlla nañ ko suñ borom di mat mottalil doya di googu nga xam ne moo nekk ci ñun yàlla nañ ko suñ borom di dëgëral lépp bakkaar bàkkaar boo xam ne def nañ ko ngir doya di yàlla nañ ko suñu borom jéggal lépp loo xam ne def nañ ko ci ay rëcc rëcc yoo xam ne mbata dig doomu aadama moo na ci yóbbu yàlla nañ suñ borom jéggal suñ boroom man na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal asalaamaaleykum